téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. ñun nag zone de captage dañoo sonn chaque at ndox bi nii lañ ñuy sonalee xoolal man bi ma ñëwee fii sama njaay mi lépp laa fekk mu feey kër yeeg fii moom doo mën a jàll da xuus ndox bi di verte ngay xuus nañ jàppale ngir yàlla. moo defe naa ne moo gën a jekk si Badiata parce que ñu ngi nii am bassin fii te ñu ngi am autorité yoo xamante ne ñeneen ñu ngi dëkk si koñ bi kon problème assainissement yi defe naa ne waruñu ko woon mën am mais chaque année bu tawee benn ñaar ba ñett bassin bi dootu mën tee ndox ba ndox bi day dévasté wu si koñ bi mais gis na ñun dañuy sonn mu ngi nii yaa ngi teg sa bët nii du canalisation du dara chaque année même problème la ñu am te gis na da gis tawee benn machine pompe la ñu indi teg fii te machine bii nga gis xam nga ne mënul yóbbu ndox bi yóbbu parce que ndox bi gars yi dañuy sonn dañuy parce que boo toogee sa kër boo toog ndox yu bi yëpp duggu fii xoolal fii xoolal frigo yi yëpp ndox bi yëpp la fa dugg fii xoolal fii xam ndox bu taawee fii yëpp day yàqu lii yëpp daa am problème waaw daa daa amoon na bu lakk ren gis nga ko les mêmes choses waaw fii daal gars yi foog état jàppale ñu parce que bassin bi aussi nekkul en norme bassin bi dafa toj bassin bi côté yëpp ñoo toj fii rigole yi aussi du dem xoolal borom mercerie bi daaw amul lu mu ñàkk daaw ak yëpp trois magasins yëpp dañoo fees. bu ñu lay fayee ko patente sax duñ la may duñ la may sax nga jël sa temps dañuy taxaw fay wala tëj sa place génn sa client ñàkkee la kers ànd ak seen i am de ten ñëw forcé la ne da ngay fay xamuñ li ngay li ñu lay laaj da koy fay force te bu defar joro doo leen gis chaque année bi ni lay def dinga nga bi bii lëg yu tappale ko ta lëg yu tappale dong moo fi nekk tappale tappale kese parce que dafuñ fi loo xëy mu fi jël ndox mi fi liggéey la laaj fii liggéey la laaj liggéeyuñu liggéeyuñu fi dara liggéeyuñu fi dara naxa sa xandang rek loolu ma jaaxal mais mairie war defal wa état la ñuy jiñ affaire bi waa mairie bi bu fayoo ko ci ñu ñooy si damaa xamul ne état ko war defar wala mairie bee ko war defar man loolu mooy sama problème waaye daal ñu daal fan yi yëpp doon am euh, wàllum inondation mi ndox mu bari si koñ bi mi zone de captage moom dafa bari trop daal même daawit loolu am na fi mën naan la canalisation yi ñoo xaw am problème it gëm naa gars yi seen liggéey ñoo des mi wàllu mairie bi sayit euh, maanaam ndox mi jógee Grand Yoff ak mi jógee euh, ay parcelles maanaam bu ndox mi bare yëpp fii la jëm si euh, mi si bassin bi nii sa bu ñëwee si bassin bi manaal la bassin bi ñun suñ suñ tooy jaar fii nii pour jël si jóge si rigole yi jóge zone de captage pour jëm fële si bassin ba léegi bassin bu feesee si kañ bi la jëm si waat ñun nag dañoo sonn chaque année hivernage bu jotee ñi la ñuy dund ci zone de captage dañuy xuus si ndox mi maire yi jaay fi gis nga leen mu mënuñu nekk ci jàmm xale yi mënuñu nekk ci jàmm mag yi nekk ci jàmm ñun daal sonn nañ xam ne ñu bëgg nag moo Madiop Diop mi nga xam ne mooy suñu maire fii nii ak gouvernement bi ñu jug jàppale waa zone de captage canalisation bi nañu torop torop torop suñu kër yi day bi doo am foo jaal da ngay xus ba sonn yooyu tamit bëgg ñoo rey te dañoo yor ay xale yu ndaw ñun dañoo bëgg gouvernement bi jug si maire bi tamit jug si jàppale ñu waaw suñu koñ moom depuis xam nga man moom depuis 2008 maa ngi fi quoi mais chaque année li lay jàkkonteel daal boo xoolee chaque année day taw mais dañuy am problème canal bi heure bu tojee rek ñun dañuy am problème mais loolu lu koy waral mooy problème de canalisation quoi bu ñu amoon canal ay canal xam nga bu si bu si bu si nguur gi jàppoon daal ñoo am ay canalisation lii lépp du am parce que ñun chaque saa yu tawee rek dañuy am dañuy am ay problème quoi ndox day dugg ba si biir kër yi te xam nga lii mën amaana lii mën mën mën mën mën nañu see jàppale quoi. mën nañ fi nekk di taalee pono xam nga di def naka su dul noonu mais jaru ko. lépp compréhension la ñoom ñoo si mën a jàpp nañ quoi canal bii nii bu tojee ay problème rek nga siy jëlee day dugg si kër yi sonal ñëpp te il paraît canal bi sax am na ay jaan xam nga wóorul quoi dafay bëri na ay xale ak lépp kon nag ñu ngi ñu ngi ñaan gars yi bu ñu si mënee jàpp ñu ñoo jàpp nañu te yàlla tax quoi sonn nañ trop waaw yéen nag ñu ngi leen di fay mënuñu leen fay quoi yéen ñi ñëw fii xam nga di interview pour xam li xew si koñ bi waaw mairie moom di leen dégg di nga leen gis si buñ la soxlaa mais gis nga ni fii taana nii gisoo fi mais gisoo dara lii ONAS la kon defe naa ne mairie fii la waroon wone ne que mu am na taxawaay si koñ mais ba lii may wax ak yow du mairie du jege naan du kenn koo koo gis daal waaw xam nga nekkul ne zone de captage mooy voté ñun dañuy voté suñu yeneen morom dañuy voté ñun mën nañ bañ bu ànd si ak moom ñeneen ñu ànd ak moom defe naa ne majorité mooy fal kon defe naa ne ñun même bu ñu àndul ak moom ñu ànd moom bu ñu ëppee rek ñun defe naa ne ñun dootuñu am foofu benn benn kàddu loolu mun naa ne loolu moo waral mu fi nekk ba léegi li lañ bëggoon ndax zone de captage gis nga tali bi doo am foo jàll ndox kase la sonn nañu torop taxi boo jël ñu fay ko loolu cher diggante fii ak fii lii nag moom wax dëgg yàlla gouvernement bi na si jug même na si jug zone de captage sonn nañ te dëkkuwaay boo xam ne la tamit